waaw maam maa ngi tudd Sada Ngom ñu gën ma xam ci commissaire Ngom waaw dañ koy ñaawlu euh, rafetlu wuñ ko benn yoon quoi mënuñu ko rafetlu parce que dañu nekk ci dëkk boo xam ne vraiment dëkk bi dañu jàpp ne war na mën a war nañ ko mën a développer mu jëm ci kanam te développer dëkk weesuwul lu tol ni Mikeland nekk fi ñu def fa ay jeux yoo xam ne xale yi bu événement jotee. wala la ñuy ñëw ak seeni i fo ñu ni jóge ci loolu def fi lu mel ni Kajoor glace képp ku bëgg dem restaurant lekk glace loo xam ne dafa manqué woon ci biir dëkk bi nga ñëw toog vraiment jël sa temps waxtaan boo amee gan gooy xaar nga xaar ko parce que ci centre ville bi la nekk soo bëggee loo bëgg nga mën ko fi def boo bëggee naan café naan café loolu loo xam ne dafa manqué woon vraiment le maire Talla si la amoon ay ambition vraiment bëgg Sénégal lambda bi am ay projet mu accompagner ko ba tey ji ay projet mu taxaw vraiment bu ay nit jógee fële rek ne def ko war a dindiwaat ci saa si loolu yaa problème day andi benn problème boo xam ne ñun mënuñu xam lan lan lan lan lan lañ ci wax parce que rafetlu wuñ ko mais effectivement ñun jeunes yëpp ñun ñëpp fii la ñuy nekk di waxtaan di savourer ak suñuy doom suñuy soxna suñ amee lu ñu war a jënd jënd bu ñu amee réunion toog waxtaan ñun ñëpp parce que fii mu nekk nii dafa arrangé ñëpp vraiment day loo xam ne daal euh, kenn waru ko fee ñëw pour boo ko defarul gën koy taaral gën leen yokk doole man jàpp naa ne li fi nekkoon waroo ko mën a ñëw dindi parce que maire li ñuy séntu ci moom mooy mu ñëw def ay réalisation yoo xam ne tey jii yu palpable yu ñu mën a teg loxo mais bu fekkee da nga nekk maire ñu fal la toog agoo bëgg a commencé xeex ñi fi defoon ay réalité réalité yoo xam ne tey jii lu palpable la nga bëgg jëlee ko fi loolu loolu bokkut ci bilan lu yàq bilan la te loolu la ñuy déplorer rafetuñu ko non en tant que jeune ni mu commencé nii mënuñu ko rafetlu parce que lii fayantoo la la la laa xamut la xaw ma xaw ma lan lan lañ ko mën a tuddee lii ñu commencé def nii xaw ma lan la parce que lii bokk na ci loo xam ne tey jii vraiment buñ ko defee histoire dina ko bind waaw te jàpp naa ni maire bi nga xam ne moo fi jóge dañ koy wax gàcce ngalaama muy Talla Sylla defar moom moo ko taxoon tey jii vraiment sénégalais am seen projet mu accompagner leen kon yow mi nga xam ne yow yaa soog a ñëw vraiment soo ko mënta rafetlu waroo def loo xam ne tey jii vraiment nit ñi dañ la ci ñaañ. Euh, non monsieur le maire maa ngi koy dalal di ko wax ne vraiment message bi ma koy lancé mooy ñun dañoo dëkk ci dëkk bi. ñun dañ feex am ay soxna am fi ay doom am fi xëy kon citoyen lañu kon li ma koy wax moom mooy comme que ñëw na ba ñu fal ko na xool nan lay ñëw di àndeek pouvoir ak ñi nga xam ne tey jii ñooy opposant ñoom ñëpp ñu bokkandoo ànd defar dëkk bi mais am na loo xam ne bu ci duggee man jàpp naa ni combat bi dina métti ci moom te dina ci wéet parce que ñun ay ndaw lañu am benn taxawaay vraiment dëkk ci dëkk bi am na loo xam ne waru ko sax jéem di def ay bras de fer ak ñun waaw wala muy jéem a di fayantoor ci lenn loo xam ne tey jii du yoon te gisuma lenn loo xam ne tey jii def nañ ko parce que lii yëpp bi ñu koy def xalaatuñ woon ne moom dina nekk maire kon na delloo seewaat xelam xam ne lim fi jot war ko fee toog dina ko fi toog bu bu ko fi war warta toog du toog kon lépp loo xam ne tey jii ay moromam nekkoon na fi dañ ne état continuité la mairie bi noonu kon bu fekkee dafa ñëw fekk ay moromam nekk ko fi bu ñëwee dafa war a continuer ànd ak ñoom mais du ñëw di dindi li nga xam ne moom ñoom leen moom lañ fi def. vraiment ñun ànduñu ci ànduñu ci parce que vraiment day loo xam ne day nasaxal sax fii mais lii boo ko fi jëlee nit ñi war a ñëw ndékki war a ñëw toog lekk glace ak sa njaboot nit ki nga xam ne tey jii moo jóge ci àll ba ñëw fii di place de France war a toog xaar ki mi seet wala toog waxtaan. lépp ne fi nga war a jël tey doom war ko yóbbu Mikeland ñu def jeu jouer ak seeni morom ñoom ñëpp war nga jëlee foofu ñëw mais boo ko fi dindee lan nga fi teg ak ñoom fan la ñu jëm loolu moom ma jaaxal war dañoo bëgg léegi sunu doom yi tëdd sunu biir kër di fo bu ñu bëggee ne fan lañ war a dem dañuy ñëw rek taxawaalu xool mairie bi départ nit boo fee fekkee da ngay dindi dara da ngay xam lan nga fi teg. proposer askan wi li nga xam ne tey jii moom moo fi teg loo xam ne lu palpable la parce que li nga yor askan wi moo la ko jox yow moo ko kon looy def waxtaan waxtaanal ak askan wi ba ñëpp gi nga taxaw proposer li li nga lu gën lii bu ko fi génnee garaawut ñu dañ ciy ànd mais dindi nit dindi nii loo xam ne dini bu tegewul fenn vraiment monsieur le maire dañ la koy ñaan man man loolu yéem na ma quoi te xaw ma lii ah lan lay nuru xaw ma règlement de compte nuru xaw ma da ngaa pour defar ku jóg pour defar jàpp naa ne waroo mën a doxalee sax nii da ngay bàyyi li fi nekk ñu defar ko nga jéem a xool leneen réalisation ñu continuer ko. non kàddu gu mujj mooy maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax ñun ay sénégalais lañ ay ceesuwaa lañu dañoo dëkk ci dëkk bi di xool liy doxal dëkk bi ñu ne kon nag am na loo xam ne bu ñu gisee nit ñu nekk ci benn logique di ci dem ñu am maire bu bees mu ñëw am benn taxawaay bu mu taxawee bëgg andi lenn loo xam ne tey ci amu fi woon. ñun dañuy tiit dañuy jaxle parce que man nag dama commencé tiit bu dee luñ fi defaroon nga ñëw nga ne moom laa njëkk a yàq ba pare balaa dara xew jàpp naa ni yaa problème même bu fekkee ne ko yàq nañu proposé lu gën lii parce que nag askan wi ñoo ko fal mais nit ki bu fekkee da ngay dema sa xelu bopp ne lii neexuma dama koy dindi te waxtaan ak askan wi jàpp naa ni yaa ngi bëgg a demal sa bopp te loolu xam naa ne mënta dem ci dëkk bi ñu nekk nañu rafetal te jaaral lépp ci yoon tey waxtaanante ñun suñu biir loolu laa amoon di ko ko wax di wax na delloosiwaat xelam lii mu am tey yàlla moo ko jox ku ko yeewoon ci ay nelaw ne ko di nga mën nekk maire danaan laan déedéet da nga koo bañ kon tey ji bu jékki-jékkee yàlla jox ko fii na xam ne yàlla la mu rafetal jaarale ko ci yoon yàlla mi ko ko jox mën na ko ko xañaat kon nañu jéem a rafetal jéem a xool li nga xam ne sa moroomu nawle moo fi nekkoon def ko fi boo ko mënee ñoŋal nga ñoŋal ko mu jëm kanam boo ko mënta ñoŋal nga bàyyi ko noonu xool yeneen réalisation yoo def parce que Thiès yaatu na te lim fi mën a def bari na loolu moom laa xam ne moom laa koy lancé di ko wax pour mu delloo ci waat xelam waaw jërëjëf